Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Senkur TV to learn English with Mr. Ba. ba léegi dañuy continuer ci English conversation bi tey nag bu neex lañu am dox ci diggante saara ak classmate bi mooy ki mu bokk classe ci gannaaw examen yi hmm. classmate lu mu wax nee na good morning Sara how are things going on good morning Sara how are things going on nuyu naa la Sara naka suba si Sara Sara naka mbir yi naka affaire yi good morning gi mooy naka suba si Sara nee good morning everything is okay good morning everything is okay Sara nee naka suba si waa lépp ngi dox. mooy lépp a ngi baax ñoo ngi ci jàmm bu baax am good naka suba si yow tamit everything is okay mooy lépp a ngi dox comme everything is good yes all right fine leçon bu jara bàyyi xel la leçon bu neex tim teg si te bu am solo ñu mën see jàngee lu bare bare ci wàllu ok di nga comprendre Sara naka suba si lépp ngi dox good morning tontu laaj bi ñu ko laajoon na ko good morning ak how are things going muy everything is okay classmate mooy ki muy bokk classe camarade de classe bi nee na ko how was the exam wala the exam was it easy or quite difficult how was the exam was it easy or quite difficult naka eczéma bi nag hmm. daa yomb wala daa xaw jafe xaw a mooy quite Sarah nee na I think it wasn't difficult at all you know but it depends on you if you know you do if you don't know you leave ah man de yaakaar naa moom lépp jafewul daal jafewut noonu mi ngi aju rek si yow it depends on you nga bàyyi ko xel nag comme niñ ko defee couleur boo xamee def boo xamul bàyyi leave mooy bàyyi bu ma waxoon ne leave mi mooy bàyyi ma classmate bi nag si uh, at the beginning hmm, I was feeling confident it was easy oh the first question I will get there three point si comme wax ñu tàmbali rek xoolal gis nga si tàmbali bi la dama ko jekku I was confident dama santiroon dëgg rek xam ne li may def xam naa ko dégg nga daa yomboon it was easy gis nga daa yomboon laaj njëkk bi moom dinaa si am ñetti point I will get I will get three point ok si bi nag bul jàpp ne mooy xoolal at the beginning mooy ci tàmbali bi at the end mooy ci mujjantel gi I was feeling confident mooy dama doon sentir confident dëgër lool waaye it was easy xamoon naa loolu tim ne daa yomb oh the first question laaj bi njëkk bi I will get there three point dinaa fa am ñetti point I fa am <laughs> Sarah ne ah you were still confused confident. Maybe you answered all. You were, you were, you are still confused. Well, or confident. Maybe you answered all. Ah, ba léegi yaa ngi am yaakaar wala danga jaxasoo confused hmm, mën na am tontu nga lépp lépp mooy all you answered mooy tontu nga bi mooy mën naa am you are still confident confused or confident ndax da nga jaxasoo wala yaa ngi yëg sa dëgërluwaay gi nga amoon ba léegi yaakaar bi nga amoon ne li nga def yëpp baax na ndax yaa ngi ko am ba léegi ah mën naa am tontu nga lépp bi maybe I will come tomorrow mën naa am suba dinaa ñëw you answer tontu nga all moy lépp all mooy lépp comme everything you answer all the questions tontu nga laaj yëpp classmate bi ne Sarah did you know the last question I was trembling oh when I saw it I was trembling when I saw it did you know the last question I was feeling confused I was trembling when I saw it la eh, dama ne eh dama jaxasoo Sara yow xam nga laaj bu mujj bi laaj bu mujj bi mooy last question la bi ma ko gisee when I saw it bul fàtte de when I saw it mooy suma ko gisee su ma ko gisee bu ma la gisoon when I saw you ii su ko gisee when I saw it bi ma ko gisee de la illa dama doon lox lox mooy tremble fuy trembling mooy lox lox lox mooy trembling I was trembling dama doon dama doon dama tiitoon bay lox Sarah did you know li ñu siy tër rek mooy lan la ñu jublu si baat yi did you know ndax xam nga the last mooy bu mujjoon the last question Sarah ne ah I got where the teacher asked Dakar is a city or country. Dakar is a or country. Sara ne ah, dal naa ci I got it bu dee ci wàllu examen mooy dal naa ci mooy am naa ko hi boobu koy tontu naa ko I got it mooy fi jàngalekat bi mooy teacher bi jàngalekat ci anglais mooy teacher fi jàngalekat bi laajee fi mu waxee. asket fi mu laajee ne Dakar ville la wala réew la dakaar moom ab dëkk bu rëy la wala ab réew la kanaa laaj boobu ngay wax la man de boobu moom bu dee boobu moo la jaaxaloon boobu moom dal naa ci moom ndax xam naa tontu bi ah I got it I got mooy I understand I got it mooy am naa ko mooy comprendre naa ko I got it mooy dal naa ci ay got it mooy li doon wut am naa ko where the teacher asked kanaadu mooy barab ba nga xam ne la jàngalekat bi laajee ne gis nga where mooy buñ doon laaj ci barab waaye where bi fii nag du nekk laaj waaye ci leeral bi lay bokk classmate bi ne yes you remember the question what was the answer oh mii mii gi tegee ko côté boobu I am not sure for my answer I am not sure for my answer. Oh, yes, you remember the question. Maybe you know the answer. What was the answer? Mm. Me, I'm not sure. I am not confident. I am not really sure that I answered it. No, I'm not sure for my answer. waa yow fàttaliku nga laaj bi waa lan mooy tontu bi sax lan mooy tontu bi wante li ma tontu moom wóorul ma I am not sure mooy wóorul ma I am sure mooy wóor na ma are you sure mooy ndax wóor na la Sara ne tell me what did you write hmm? you mustn't give wrong answer as a citizen or being a student oh tell me what did you write wax ma yow yow yow lan nga bind loo bind wax ma wax ma yow waroo tontu tontu bu baaxul de waroo ko ñàkk tontu en tant que ab citoyen ak nekkit jàngkat kon dangay ngay gis student mooy jàngkat citizen mooy citoyen tell me mooy wax ma rek baat bi kese loolu mën nga ko am ci wax bi ba bëggee wax nit mu wax la danga nan ko tell me what did you write mooy lan nga bind Hmm? you mustn't give mooy waroo joxe you mustn't give wrong answer waroo tontu tontu bu baaxul ci beneen anam noo ko mën a dégg ci wolof mooy waroo ñàkk tontu ndax laaj bi dafa yomb waaye waroo joxe tontu bu baaxul loolu mooy you mustn't give wrong answer waroo joxe tontu bu baaxul wrong answer mooy tontu bu baaxul correct answer mooy tontu bu baax classmate bi ne I wrote Dakar is. a country man de loolu laa bind isn't that correct I wrote there Dakar is a country hmm. isn't that correct He... man de lii laa fa bindoon I wrote write mooy present bi past bi mooy wrote bind bindoon fii de wala foofa wala ci tontu booba wala ci question booba lan laa fa bind lii laa fa bindoon mooy dakaar ab réew la baaxul wala li ma waxoon baaxul gis nga isn't that correct ndax loolu wérul is correct na isn't correct wérul isn't that correct ndax loolu wérul hmm? lii laa fa bindoon de mooy Dakar ab réew la kon lan lañ fi soxla road mooy past right bindoon jëlal a country mooy ab réew foo ko mën a dugal baax na ok French is a country Mali is a country Burkina Faso is a country. Chad is a country. The Gambia is a country. And also Senegal is a country. ñu xool Sara lu mu tontu Sara ne that's a big mistake that's a big mistake ah you give mooy present bi you gave mooy past bi you gave wrong answer you La ilaha. Senegal is a country, bro. Senegal is a country. The answer is Dakar is the city. Hmm? Senegal is the country. The answer is Dakar is a city. Boo waxee mooy Dakar ab ville ville the city boo ko waxee mooy Dakar mooy ville bi léegi nag ci tontu bi dama indiwaat baat boobu rek ci anglais bi wala ci France boobu. classmate bi na ah, ok all right all right so I will get zero point hmm? what about the third question okay all right I will get zero point there what about the third question ah, kon man zero lay am foofu ndeysaan waa laaju ñetteel bi nag waa ñetteelu laaj bi nag lan laa fa war a am ak lan fa war a tontu what about mooy nangam nag ok thank you bye bye